jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd bokk ñun mbokk internet bu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi.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 Idrissa eh, nekk koo xam ne rek daal nay ànd ak président Sall lu toll ci moom ma nga xam ne rek moo di Abdou Aziz Diop nag tey jii nag ma nga yëkkati ay kaddu di jëme ci ka nga xam ne rek moo di président Sall di wax ne rek Macky Sall na nga bàyyi eh, pexe te bàyyi ne rek moo di Farba Ngom ndax kat eh, Farba Ngom nekk rek moo lay dugal ci ay tooxi doona ndax kat 2021 nag li xewoon rek Farba Ngom génnu ca ak itam 2023 bi gis ngeen ki nga xam ne rek moo di Farba jamono ji sax dañoo taal këram waaye nag ka nga xam ne rek moo di moo di pexe ya nga xam ne rek ma ngi koy pexe moom Farba Ngom di wax ne ka nga xam ne rek moo di président Sall na bàyyi ka nga xam ne rek moo di Farba Ngom parce que nag ki nga xam ne rek moo di Farba euh, koy dugal ci ay tooxi doona baaxul benn yoon na ko bàyyi fële di wax ne Macky Sall daal jamono ji nag na bàyyi pexe xam ne rek pexe nag mënul gañ ay élection euh, di wax ne jamono ji daal li nga xam ne rek daan na koy def nag daan na koy metti lool parce que nag jamono ji daal nam doxalee ak diggante digganteem ak moom moom président Sall ay kàddu yu tàng jër jëme ko ci ka nga xam moo di président Sall ak itam ka nga xam ne rek moo di Farba Ngom nekk koo xam ne nekk loo xam ne mbir mu doy war la itam nekk loo xam ne rek daan nay jaaxal ñu bëri moom Abdou Assis Diop nag jamono ji di yëkkati ay kàddu yu tàng jër di ko jëme ci président Sall te ànd nag président Sall lu toll ci douze ans mësul wax benn yoon jëm ci moom tey ji nag gisul intérêt rek di wax ca moom moom loo xam ne nag daan nay doy waar lool moom Abdou Aziz Diop mu nekk loo xam ne nag jamono ji moo jur coow lu rëy ci li nga xam ne rek moo internet bi